di ku yàgg a taxawu ay nit ci mbaaxuk yàlla ci wàllum ñaan dangaa am ay jafe-jafe ci wàllum këyit moo xam yaa ngi ci biir réew mi wala yaa ngi bitim réew dangaa bëgg sa bunti wërsëg gën a gaaw a ubbiku danga bëgg bayrab njaay wala bayrab jigéen danga tëju cat dala sonal ndax lii ngay bëgg a dugg moo gën ci yow waaw wala déet sëriñ Ahmadou Mbàkke borom def gis dalay defal listixaar wax la ni ngay def danga bëgg kaaraange ci sa bopp mbaali la wër danga bëgg ku la jiboole ki nga nekkal dangay xëccu ay sànce wala ay marché sa yaakaar day faral di tas wala danga am yitte joo munta wax kenn ak lu mu mën a doon gaaw wala gaaw jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mbàkke borom def gis ci mbaaxu yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaaro yu gaaw ci li nga bëgg ak ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul giseel ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi mën ngeen ko fekk Dakar Patte mercredi ba vendredi mën ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def kiis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel. wax euh, la soxal wàllum politique ak coow li nga xam te ne mi ngi wéy ba léegi gannaaw bi ministre Mansour Faye yëkkati kàddu barki démb ci RFM ci grand jury di xam ne nag moom bés bu ko nag wooloo ngir déglu ko ci mbirum euh, plainte yi nga xam te ne nit dañ koo def gannaaw bi njorte daal lu bal dafa am euh, ci ndimbal gi nga xam te ne moom la ñuy jagleel askan wi mbas mi laal moom Mansour Faye xam ne du a wéy ji of nag loolu nag Ousmane Sonko njiitu Pastef di koy ñaawlu nee na nag Mansour Faye soit dafa xamul wala bokk dafa faalewul kuréel gi nga xam te mooy of nag ñu déglu kàddu kàddu Ousmane Sonko ci micro Mohamed Nabi Sila. affaire Mansour Faye moom du ma ci wax lu bëri li mu wax li mu njëkk a wane mooy ñàkk xam te loolu bettuñu parce que gëmuñu ni fee mu toog xam-xam ak mën-mën moo ko fa teg waaye mbokkoo rek moo ko fa teg ñàkk xam moo tax nit mën a ne ab ministre mën a ne man du ma tontu of nag taxaw wax jombe gu tel noonu sénégalais bu ñu woowati ne la of nag nel dew ma parce que Mansour Faye demul te Macky Sall moo ko protégé loolu du exemple bu bu njiit di joxe c'est malheureux mooy maire ak Saint-Louis dëkku xam-xam la dëkku njàng la dafa produire de grands hommes pour le pays et pour le continent et pour le monde de grands intellectuels et Saint-Louis ne mérite pas un maire et un ministre comme celui-là ñaareel bi mooy dafa wone arrogance tubaab di wax arrogance ñooñu nekk of nag mun naa ne duñu ay moroomam parce que Seynabou Diakhaté bi jiite of nag magistrat de haut la waaye nag su dee moom jàpp na ni nekk goro Macky Sall tax na ba ba mu am tubaab di wax mooy kenn du ko laal dafa nax boppam du menace du dara yi léeg-léeg Sénégal dañ daan da ngay menacé menacé wuñu dañuy fàttali bu soobee yàlla gàtt na gudd na ñoom ñëpp dinañu rendre compte mu nekkoon euh, Ousmane Sonko njiitu Pastef yëkkati yooyu la kàddu démb ba mu demee nemmeeku ji woon tool yi nekk ca Mboubeen ca commune bu Jama foofa ca Ndar euh, di tool boo xamante ne nag euh, ñii di waa Pastef ñoom ñoo ko daal di taxawal ci seen programme bi ñu tuddee vacances agricoles patriotiques. Bamba woon a waa géej ah mbokk yi ku nekk xam ne ni màggal Touba gi lii dafa dajek nawet bi a ah, waral ñu ni leen ay baas yu mucc ayib dëppook nag jamono ji ak nawet bi baas yoo xam ne day tëju fermé wu baas yu mucc ayib taaru lool tarafet waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05